مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدايا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون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 أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إخواني في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نوغي màggal allah subhanahu wa ta'ala di ko gërëm di ko bàkk di ñaan mu jéggal nu sunuy bàkkaar jéggal nu sunuy rëcc-rëcc noo ngi julli tey ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i ak taabiina lahu bi ixsaanin ila yowmi ddin mbokki jonwaar mbokki dëkk bi yépp noo ngi nuyu imaam yi ak kilifa yi mbooleem kuy dégg sunu kàddu noo ngi lay nuyu di la tatagal di la ñaanal mbooleem ku teew ci jotaay bi noo ngi lay ñaanal yàlla nasru ak yusru ku teewulit yal na yàlla boole defal ñu tawfiq di tatagal mbokk yi ñu àndal jóge Dakar ñëw ci sababu mu'tamar bi ñi fi cosaanoo ak ñi fi cosaanoowul ñépp noo ngi ñaan yal na yàlla wesaare sunna ci réew mi yal na daj këpp ci Sénégal ak mbooleem réewu jullit noo ngi ñaan yàlla mu dundal ñu ci sunna rey ñu ci dekkal ñu ci ñu ànd ak alxabib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi firdawsihi al a'la innahu waliyu dhalik wal qadir alayh mbokk yi sunu jotaay tey dafay nekk madaaxilu sheytaan madaaxilu sheytaan mooy ay jaar-jaaru sheytaane yu muy jaar ngir dugg ci doomu aadama fas yéene ko yàqal xam ngeen ni seytaane yàlla da ko tàggat mu bari mën-mën lool bari pexe lool gudd fan lool seytaane jiitu nañu lu yàgg te moo ñuy mujj ndax du dee fekk ñun jeexuñu ci kaw suuf du dee fekk mbindeef yi war a dee te ne ci suuf deewuñ muy nit ki nga xam ni noonam la ak jinne bi nga xam ni li ëpp ci jinne ay noonam lañ seytaane mbokk yi di dox suñu duggante ak suñu dund waaye rawatina suñu digganteeg suñu boroom soxor ci lool xam fi muy jaar lool am fit lool mbokk yi nekk gi seytaane yi nekk ci suñu biir loolu yàlla da ko def ngir mu nekk xàmmekaay ci ki bëgg a baax ak ki nar a topp safaan ki bëgg a baax laa shakka day mel ni malaaykatul kiram ngir déggal borom bi bi mu leen sante ñu sujootal ko ki bëgg bon nag day jël tariqu iblis topp yoonu seytaane ngir moom it mu nekk rajim kom ni ñu jamee iblis mbokk yi képp ku topp seytaane jaar ci ay jaar-jaaram fekki bëgg-bëggam yow bokk nga ci parteem muy hizbu shaytaan yàlla nañ ci yàlla musal képp ku nekk ci hizbu shaytaan ah kooku yadxulu fi laana wa tard dana dugg ci rëbb bi yàlla rëbb sheytaane ak dàq bi mu ko dàq waaye bépp nit bu moy seytaane kooku dey milité ci hizbullah muy parti yàlla te ala inna hizballahi humul muflihun yal nañ ci yàlla boole ki bokk ci parti yàlla nag dana mucc ci mbugalam yàlla ki bokk ci parti seytaan dana ànd ak seytaane dugg jahannam dana fa joteeg moom xuloog moom ba seytaane lam koy tontu ma ana bi musrixikum mënaluma leen a muccal mënu maa muccal kon mbokk yi li war ci jullit buy woote woo al imaanu billah mu takku ba dëgër fas yéene jaamaarloog noonam boobu di seytaan jullit na takku ba dëgër ngir jaamaarloog noonam boobu di seytaan waaye xeex ak bakkanam ngir jaamu yàlla ndax bakkan mooy premier militan seytaane jigéen mooy deuxième militant alal mooy troisième militant kon seytaane dafa am ñetti militant yu am doole ci dundu doomu aadama dafa am ñetti partisan yu am doole ci dundu aadama ki ci jiitu mooy bakkan di an nafsul lawaama ak it an nafsul ammaara bi suu muy bakkan bi lay yedd waaye bi lay dugal ci ñaawteef bari na lu nit def lu ko xañ diggam ak boroomam déggal gu mu déggal bakkanam moo ko dugal ci musiba boobu ñaareel bi nga xam ne ci partisanam yi la bokk muy jigéen nga xam ni jigéen seytaane da ko mën jege ko lool waxuma ñépp nag waaye li ëpp ci ñoom seytaane da leen a mën ndax oyof bu nu oyof ak gàtt xel bu ñu gàtt xel inna kayda kunna azim seeni pexe ñoom jigéen lu màgg la ci kanamu góor gu ñu naral seytaane bépp góor bu jigéen naral seytaane ha balaa ngaa mucc danga wax lu set ñetteel bi ci partizan yi muy alal nga xam ni da koo couleur façon couleur bu nekk ba bakkan yépp ànd bëgg ko moo xam bakkanu ku tedd walla bakkanu ku teddadi bakkanu ku baax walla bakkanu ku bëgg a baax ñoom ñépp dañoo ànd ci benn mbëggeel muy bëgg alal zuyyina linnaas hubbu shahawaat min annisaa ba ci alqanaatiiru almuqantara min aldahabi walfidda walxayli almusawamati wal ancaami walxars kon zalika mataau alxayaati dunia kon yow mbokk jullit moytul waay jéemal jàng sa noon ni mu la jàngee ba xam la war na nga jàng ko ba xam ko moytu ko soo ko bëggee moytu nag ñetti yi nga xam ni ay partisan lan di ñu principal ci biir parteem ñooñu il faut nga mën a jaamaarloog moom fexeel ba ki ci jiitu di bakkan nga xeex ak moom xeexal ak moom ba lim bëgg doo ko def soo ko seetaanee mu diriger la danga bokk ci partisan moo tax waxkat ba doon wax ni wan nafsu ka tifl in taxmilhu shab ala xubbi ridaa'i wa in taftimhu yanfatimi ne bakkan mook liir ñooyem buy nàmp ba toll ci fer fer daa metti xale buy fer dana jooy dana sonn soo ko yërëmee du fer kon wa in taftimhu yan fatim waaye musibaam yépp moom nafs kat tif la xale lim bëgg rekk la xam kon xeexal ak bakkan moomu ki xeex ak bakkanam ba mën ko kooku yàlla dana ko def ak defal ndimbal ndax boo xoolee ñi gën a të seytaane mooy ñi seen bakkan bu sa bakkan amee ci yow cër rekk nga mucc ci seytaane day jafe seytaane am na moyen yu mu duggee ci sa biir yaram yàlla may na ko pouvoir boobu am na moyen yu muy dawee ci say wen comme ni deret di dawee ci sa yaram seytaane am na loolu su bëggee dugg ci sa jëmm day dugg dugg ci sa biir deret di ci daw ni mu ciy dawee ba am pouvoir boobu mën na laa def looloo xam ni danga ko rëcc foo toll lan moo lay musal ci loolu nag mooy boo xeexeeg bakkan bali bakkan bëgg nga bañ seytaane pour mu dugg la dana jafe waaye du tax mu bàyyi nag waxtu wu nekk mu ngi xool fan lay jaar ba dugg la su mënta jaar ci bakkan ba dugg la dana jaar ci bàkkan bu mën a dugg ci yow muy jigéen su la jéemee dugg nga am say askar jël say précaution góorgóorlu ba mënulaa dugg mu dem seeti benn xale bu jigéen bu rafet dugg ci moom te xam nga nit dafa yomb bëgg moroomam góor dafa bëgg jigéen jigéen dafa bëgg góor su ko defee nag su demee dugg ci jigéen rekk mooy ak quatre vingt pour cent mën naa mucc ndax sa bakkan xeex nga ak moom comme noon waaye xeex ak sa moroom mooy jafe mu delluwaat ci hubbu shahawaat mina nisa foofu boo deful ndànk fa la bakkan di daanoo jeng jëm ci jigéen ju taaru bu jekk bu rafet mel ni ko bakkan bëggee soo defut ndànk rek fa muy mujj mooy seytaane dana xëy reetaan la ndax dana dugg jigéen ji ba mu jeex tàkk wëlbatiku ñëw ci jëmm jigéen def gestu jigéen def loola loo xam ni danga ci amee gàcce boo xam ni dootoo génn abadan loolu it ci xeex yi la bokk kon mbokk yi seytaane stratégiem dafa bari bëri na yoon yu mu mën a jaar ba yàqal la kon sóoral ni noon la bu pare <clears throat> ngir yàqal la yow lan nga ko mën a baaree fan nga mën a jaar ba du la mënal dara mooy turu yépp danga koy jéem a fat noo koy fattee say pexe déedéet bu dee say pexe rek mënaloo ko dara noo koy fattee sa njàmbaar bu dee sa jàmbar mënaloo ko dara bu dee të moo la gën a të ndax jàkkaarloo nag yàlla yàlla ne ko defal mu ne defuma te yow sañoo loolu kon bu dee fit moo la ko ëppale bu dee tamarrud moo la ko ëppale ndax moo koy def ci yow kon fan nga mën a jaar ba mucc ma jox leen misaal ci imaamu Malik di imaamu daaril hijra dafa doon jàngal benn waay julli ba àgg ci istiaada muslu yàlla balaa ngay jàng waa ji ne ko loolu luy njëriñ bi lan moo tax balaa may jàng ma ni audu billahi min asheytaani rajim imaam Malik ne ko soo demoon cib tool làkk boo xam ni dañ fay bàyyi ay ñàmbeeg yooyu nga bëgg a dugg ci tool bi tool bi am xaj te nga am soxla pour dugg fa nan ngay def ba dugg ci tool bi waa ji ne ko ah xanaa ma woo boroom tool bi mu ñëw ànd ak man ndax xaj bi ragal maa laal imaam Malik ne ko istiaada loolu lay tekki ndax da nga ni audu billahi min alcheytaani rajim ne woo audu min alcheytaani rajim mais audu billah nga wax kon maa ngi wéeru ci yàlla mu musalma ci seytaane kon boo bëggee mucc ci seytaane te ko du sa benn pexe boo mën a def waaye bi nga mën a def rek mooy nga daw wéeru ci yàlla kon wéeru ci yàlla moo lay may nga të seytaane mbokk yi seytaane day daan doomu aadama waxtu bu nekk waaye léeg-léeg nag seytaane daan ko mu daan seytaane moom doomu aadama waaye lu bari lu muy gañee doomu aadama mooy da koy taar-taaral àdduna da koy bëgguloo àdduna ak taar-taar yi borom bi tabaraka wa wax nañu ko mais wala tagurrannakum alxayatu dunia wala yagurrannakum billahi lgarur waay waay bu leen àdduna wor àdduna day woraate iblis day woraate nan la la àdduna di woree ci ay taar-taaram la lay xëcc ñaata ñoo fi am njub départ dem ba ci biir njuba di ñëw lan moo ko indi hubbu dunia lan moo ñu dal tey ba suñuy noon mën nu Occident ñi mel ni ñoom lu ñu bëgg def def ko ci suñu biir du dara lu dul hubbu dunia wa karahiyat mawt saa bu ñu demee ba gën a bëgg àdduna waa àdduna buñ leen gënee bëgg àdduna mooy mënuñoo te seytaan kon seytaana ci yi mu mën a jaar ba yàqal la dafa bari léegi nag lan moo war ci ab jullit ñun ñépp li ñu war mooy ñu moytu seytaane moytu ay jikkoom xeex ak i buntam fexe ba mucc loolu moo ñuy dimbale su loolu amul fa ñu jëm mooy dana lu yàqal ginnaaw ñett yi nag ma waxal la ci buntam yi la bokk dinaa jéema a sard benn benn ci yi ëpp solo ci fi muy jaar ba dugg doomu aadama bi ci jiitu mooy alxirs alxirs ala dunia mooy xër xër nag bokk na ci buntu seytaane yi gën a grave ginnaaw bakkan ak alal saa bu jaam bi nekkee ku xër lool ci bëgg-bëgg xër lool ci àdduna daf koy tëxloo gumbaloo ko dof ñëw na saa bu nit demee ba bëgg-bëggam rekk la gis dootul dégg dootul gis mooy nit nekkatul foofu lan moo fi nekk benn dof buy manifesté wu lu tax mooy li ma bëgg rek laa war a am loolu jikkoy bebe la jikkoy xale te malheureusement di nga gis ci nit ñi ñoo xam ni xër moo tax yu bëri di leen dal bëgg naa dama war a am waaw nan laay def ba am nag mooy bu ma jaar ba am danaa ko def man daal naa am bëgg naa lii war naa ko am nan laay def dootuma xool lenn naa fexe ba am ko loolu mbokk yi fu muy jëme nit mooy dalay yóbbu ci bew dalay yóbbu ci réer waaye dalay yóbbu ci tëx génne sa xel mooy nit dootu fa nekk ku am savoir vivre koo xam ne day xalaat dootu fa nekk mais benn jëmm boo fay nekk boo xam ni emballage perdu la kon mbokk yi xër li mu mën a yóbbu nit bu ci nekk bàkkaar la xër amul fu muy yóbbu nit lu dul ci bàkkaar soo xëree ci diine ci bàkkaar la lay yóbbu ndax fu mu lay yóbbu ci xulwu soo xëree ëppal soo xëree ci jaamu yàlla ëppal ci jaamu yàlla xër moo tax ñu bari ci jaamu yàlla ñu yokk ci lu ci bokkul ndax seen ak njàmbaar ak seen ak dëgër lañu ñu jàppee diine ji te diine demewut noonu ñetti nit danoo ñëw kër yonent bi sallallahu alayhi wa lu leen indi pour laaj yonent bi nan lay jaamoo yàlla bi ñu ñëwee fekk yonent bi nekk fi ñu laaj yaa Aïcha yaa Aïcha nettali leen wooru yonent bi na mu daan wooree waa ji ne man incha allah dootuma dog koor lay continuer keneen ki ne man incha allah dootuma nelaw guddi naafila lay continuer keneen ki ne man incha araamal naa takk jabar yonent bi ñëw ñu wax ko ko mu woo leen ñu ñëw mu ne leen mbaa xam ngeen ni maa leen gën a ragal yàlla gars yi ne ko ah loolu kay werante wuñ ko mu ne mbaa xam ngeen loolu maa leen gën a ragal yàlla ñu naa ah, mu ne man dey damay lekk di naan di woor di dog di soxlawoo jigéen kon nag ku bañ sama sunna bokkoo ci man ñee ndax seen intention bonoon na déedéet intention bu baax lañu ame amee mais xër moo leen dofloo xër boobu nag fu mu ñu yóbbu ci alxulu nit dana tollu xër ci diine di góorgóorlu ci julli ba ku dul moom mu xeeb la ci julli nit dana xër ci diine ci julli ba ku dul moom dootoo ko jiite pour moom day jàpp ne ku ko jiite mënul julli yaa xii diw julleem bi xoolal rukkoo yi yaa xii nga bëgg dugg ci xolu nit ñi xool nan lañuy jullee lan lañuy jàng nan lañ koy jànge ndax sell na walla sellul ku la dugal ci domaine boobu du sa domaine yemal kon xër moo ci yóbbu nit nit dina xër ba gis moroomu jullitam génn ko ci diine moom toog mu mel ni mooy gendarme bi àtte jëfu jaam ñi ah noo diw du nangama diw nangam la ki la neex moo baax ki la neexul daa bon lan lay yóbbu ci nit mooy taassub te malheureusement lu bari ci umma bi loolu da leen a dal du ci ñun rek de boo duggee ci dëkku arab yi bu ci ñun loolu fi am foo dem da ngay fekk ñoo xamante ne al mutatarrifuun da ngay fekk ñoo xamante ni dañoo jéggi dayo ci seen ngëm te pourtant lu baax la jublu danga fekk koo xam ni dana xeeb moroomu jullitam te lay tax mu xeeb ko du sax lu ñu war a xeebee jullit danga fekk koo xam ne dana àgg ci moroomu jullitam ba fiir ko génne ko ci diine mel ni yow yaa yor diine ji mel ni yow lañu ñu mel ni yow la yàlla yónni te ki yàlla yónni yonent bi da ay borom bi da ko wax ne ko lasta alayhim ah lu muy tekki <laughs> lu muy tekki mooy kenn defu la gendarme ci kaw nit ñi ngay contrôler seeni fait santuñ la loolu yow jaamul yàlla li nga war a def def ko moom su ko defee yeddu ko su baaxul su baax bi baaxee dimbale ko mais mënoo koo juger ndax nekkoo ci xolu nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla yónni wuñu ci xol yi xol dafa lëndëm yàlla wóon léegi nag boo deful ndànk da ngay commencé dugg yaa xëy kii ndax nangam la kii est-ce que pas-pasam leer na yow ku la lijjantiloo pas-pas bu leer ak bu leeru yow li ñu la wax mooy nit ci ay jëfam ak ay actam lañu koy àttee mais kenn du ko àttee ci njoortu ci man bil xayb kon loolu lu koy indi mooy xër dana àgg ci nga bëgg àtte nit ñi kii moo jub kii jubul kii baax kii baax te mbokk yi ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ ku nekk am na foo mën sa moroom kenn mënul ñëpp fépp de amut yonent bi dong la ko yàlla may. ñun ñii toog ñii ku ne am na foofoor am na koo xam ni koor moom ayaamul biid moom macha allah yàlla may na ko ci lu bari waaye alquran moom jàng ko sax talu ko soo gisee koor gi nag jàppal ni ci côté bii macha allah roy ko ci moo la mën. mais amaan na côté boo xam ne bu ngeen waxtaanoon moom dana xam ni am na foo ko mën su deful ndànk nag kooram googu wala jàng alquraanam wala julleem seytaan dana ko nax na ko non non Omar Sall buy julli xool ko buy rukkoo ndigg li day dëng buy sujoot cat lay sujootee léegi nag yow nga fàtte sa julli léegi di contrôler Omar Sall foo ñëwee ci jàkka ji rek yaa ngi xool ndax mooy jiite buñ ñee allahu bar nga xool pourtant ndigg li dëng na de ndigg li jubbantiku na de sujoot bi dafa gaaw pour pourquoi mu kii nii léegi yow ñu ngi julli mais yow génn ngi ci julli ji seytaane génne na la yow parce que yow bokkatoo yow mi commencé toog naan digg li dëng naag dëngul mooy bokkatoo ci julli gi yow kon yow déjà seytaane mën na la loolu mooy danger kon loolu ñu war ko moytu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko doon tereloo lan la ñu doon tere mooy daf ñu doon moytuloo yu doy sala moom mooy an natt fi diin jam diine jam pas-pas loolu nañ ko moytu lu koy indi xër ñaareel bi mbokk yi bokk na ci madaaxilu seytaan ngeen jàpp mooy xër pare boobu ci tënk bu ñu ñëwaatoon ci madxal bi nga xam ni mooy alxasad iñaan moom it bokk na ci te mbokk yi iñaan lu dangereux la seytaane da ciy jaar ba daan la lan mooy iñaan mooy lu ma amul kenn waru koo am lu ma mënul kenn mënu koo mën lu ma sañul kenn waru koo sañ. ku iñaan mbokk yi du am lu baax du yéene keneen lu baax loolu mooy danger bi nekk ci iñaan moo tax seytaane pour mu instaurer iñaan fi mu ko njëkk a réussir ci ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi la ko réussir kon réussir ko feneen yomb na ko. su ko réussir ci ñaar ñu bokk deret mën na koo réussir ci ñu bokkul deret ndax su demee ba Qaabil am intention rey Haabil lan moo tax mu di ko rey mooy taar-taaru àdduna rakkam bu jigéen bu rafet bi mu gis te rakkam bu jigéen araam ko dagan beneen frère bi te rak frère am boobu rakkam ñaaw mu ne du jël ku ñaaw di bàyyi ku rafet am na ñoo xam ne seen objectif ci sëy moom nan naayis rek nu mu mënti mel baax na moom daal oustaz dama bëgg a jabar mais vraiment dama bëgg ku kii daal ku kii ku kii foo ko déggee rek bul sori <laughs> kii moom fu la ko gaa yi waxalee rek bu yaboo bu yaboo <laughs> nga kii benn waaye ndeysaan dama maa ne Moussa man dama bëgg vraiment kiyel ma daal utal ma soxna ma ne ko waaw temps boobu nag amaguma ma nii macha allah ni ma yeew ku daan wax jabar dama lay doxal temps boobu dama dofoon boo demee ba ci kanam ngay doog a wér ngay doog a xam ni ndeke gaa yi utal ma jabar joo dégg taxawal jabar kenn du ko utal nit nit a koy utal boppam gis nga jabar ak xar jëndal ma xaru tabaski foo jëndalee borom bu ñëwee ne fay pourtant xar bu tuuti bi est-ce que jëndee na ko 100000 boo demee 40000 la ko jëndee de seytaane fa lay liggéey wala 20000 <laughs> mais moom bu demalee boppam daral boo mooy dina jënd bu yéesu bi nga jënd loolu mooy danger bi moo tax ku ma yóbbante xar man la booy demalal sa bopp ku mën a jabar laa bëgg ma ne ko jigéen ñaa ngi wëral waaye ñu ne dafa bëgg jabar daal bu mel nii bu mel nee ma ne ko mbokk mu naa ma ne ko billaahi su ma ko gisee dinaa la invité ci mariage bi danaa ko takk woole nga ñëw ndax li nga may wax kat lu baax la te gënoon mu ko bëgg bul la tànn loo ba bàyyi da nga xam ne gaa yi tànn bi yépp alaa dawme rek alaa dawme yi ci iñaan fi muy jëme nit danger yooyu bokk na ci mooy doo am kenn du am doo mën kenn du mën loo mënul kenn mënu ko baab bi mu gën a mën a duggee nag ci ahlu sunna yi te laay njëkkee mooy ci baabul ilm ak madxul ulama ak taanuhum ku ñu wax rek <laughs> non diw pourtant <laughs> jàmbaar la de pour sax nga ne diw borom xam-xam la pour yow dafa ëpp non diw borom xam-xam na mu ta macha allah góorgóorlu na jàmbaar la de yaa lan moo nekk ci diw borom xam-xam la daf laa tax a néew néew doole diw yàllaa ko may yàllaay maye après pourquoi nga bëgg a toog di àtteeg goroom xam-xam yi non diw moo raw diw moo gën a nàngam yow raw est-ce que da nga mën a toog àtte ku raw ak ku raw kenn santu la loolu bu yàggee da lay yóbbu taan fil ulama di jam ay boroom xam-xam. te nit na moytu lu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqu luhuuma al ulama fa inna luhuuma al ulama masmuuma moytu leen deru borom xam-xam yi ndax yàlla da koo posone képp kuy toog ci deru borom xam-xam di ci wax lu bon boo moytuwul bis dana ñëw nga torox loolu yàllaa ko garanti moytu leen deru borom xam-xam yi lan moo tax li annahum warasatul anbiya ñoom borom xam-xam yi la yàlla dogal ñooy donn yonent yi kon ku mu ci mënti doon yëkkatil bu ñu commencé di intixaas bañal waaye diw am na xam-xam diw amut xam-xam diw nangam diw du nangam commencé dugg léeg-léeg borom xam-xam juum ñun ñépp dañuy juum kulluna naxta ma min ahadin minna wa illa wa huwa yuxti wa yusib amul ci borom xam-xam yi ku dul juum wala imaam am na yaakaaruma ko de moo xam muy ci salafu saalix walla ci xalaf nit dana juum mu def nag njuumteem bu delloo ci aqiida nañu fexe ñu jubbanti njuumte li te bañ koo jam xam nga lu tax mooy góor góorlu gi mu góor góorlu ba def lii dimbale jullit ñi la ñaareel bi yow balaa koo jam xoolal li mu liggéey nu mu toll yow matagoo genn wàll liibar moom ay ton la ana genn wàll liibar nu muy taxawee di naq da ay ton lan ana imam Ghazali liggéey téere boo xam ne bu am solo la nga xam ne ihya diin li ci nekk ci xam-xam bëri na moo tax Zeynuddin xaafizul iraqi nga xamante ne borom xam-xam bu mag la ci wàllu xadis dafa xool téere bi ihya diin nit ñi daan ci wax téere bi baax na mais dafa bëri njuumte mu jël téere bi tëjoog moom defaraat ko wéral xadiis yi ci wér yi wérul mu joxoñ ko wane ko loolu mooy liggéeyu nit kii yii mu baax le apprécier ko yii mu bonle soo ko mënee jubbanti jubbanti ko loolu lañ la wax mais munoo toog nag bëgg ni nàngam noo xasaali bu leen liir téeréem téere bi musiba kese la foo la yow benn nga dégg mu wax rek xamoo sax fu musiba bi tege nga bëgg a naq de xasaali ak li xasaali liggéeyal diine yépp yow newoo ci xolam xamoo lu ko yàlla nangul nga bëgg a toog di ko jugé ñaata la liggéeyal islam te yaa ngi koy naqdi te jàngoo téere bi bëri na kuy naqdi téere bi musu koo liir wala xamul lu ci nekk soo liiree lépp di nga xam ni yaa xiwaan yi nit dangay ngay teey nga dal ñaata boroom xam-xam la ñuy xool leen Seydi Qutub ni mu toll daraja bi ko yàlla may ci tafsiru Qur'an. góor góorlu bi ko yàlla may ci bëgg sunna bëgg diine même bu juumee njuumte la day juum war na juum mais njuumteem nag warul tax ñu génne ko ci jullit ñi nag warul tax ñu dàq li mu def amul benn mu fassir buy tafsir ci jamono ji lu dul Seydi Qutub da nga soxla waxam kon dangay xam ne kat kii juum na fii mais naa jël lii ñaanal ko yàlla ci yii mu baaxle yii mu baaxlewul ma ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko ci kon ib shabab nañ leen moytu yu mel noonu nañ leen moytu naqdul ulama wala boo koo ciy naqd na nga ko naqd avec dal ak xel mais toog jël sa temps di wax ci koo xam ne génn na àdduna moom dootul bàkkaar ci yow yow yaay bàkkaar ci moom de insha allah su ngeen dajee yowmal qiyaam moom yàlla yow lay laaj ci moom mais moom xamula sax musulaa dund gisu la dee na ca la mu dee bu ko yàlla gërëmee alhamdulilah yàlla na ko yàlla gërëm mais nga dem yowmal qiyaama ameel nit bàkkaar koo xam ni bokku leen génération dundandoowu leen ñetteel bi nattal sa bopp ci moom lan nga liggéeyal diine lu ñu xam ci jàng nga toll àggagoo fenn bindoo sax walaw ñetti satar nga bëgg a dal ci Seydu Xutub ku bind ay mujallat yu kenn xamul nu mu toll bëgg a dal ci sëñ yi bëgg a dal ci kii li mu liggéeyal diine yow nattal rek sa bopp ak moom leen teg ci poids ak moom ku leen di nattale sax mooy ku xamul kon jullit day muytu yu mel noonu yépp liggéeyu seytaane la mais da koy dugal ci saaxa bi su ko ci dugalee nag mooy day dox sa digganteeg sa ngëm-ngëm mooy da ngay nekk gendarme buy wër di àtte nit ñi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ñu wax ju am solo nee nañu iyaakum wal xasada fa inna al xasada yakulu al xasanaat kama taakulu naaru al iñaan day lekk jëf ju baax comme ni safara di lekkee matt soo jëloon matt taal ko fii balaa gee mu jeex tàkk nekk doom neena iñaan noonu lay yàqale nit kon moytu ko muytul iñaan góor góorgóorlu nga jéem a def ni ñoom jéemal liggéey sa bopp ci xam-xam boo amee xam-xam bindal waxal dimbaleel beneen bi iñaan dana la dugal ci diw non diw daa bëri wax mais xamul dara ah. léegi nattal sa bopp yow ak diw nu ngeen toll ci société bi lan ngeen liggéeyal société bi yéen ñaar non oustaz diw noo dafa bëri wax quoi mais xoolal noo benn juumte la oustaz diw di juum ñu ñu àttee ko ko ak daara kullu xamul dara dafa war a jàngi dafa war a nàngam yow temps bi nga toog naan dafa war a jàngi est-ce que yow jàngi nga yow est-ce que yow jàngi nga temps bi nga war a toog di critiquer est-ce que def nga li mu def te pourtant amaan na benn kàddoom am nañu ñu ku mu jubal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ali ibn abi talib li an yahdiya allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min xumurin am wax ba yàlla jubal kenn ci sa kàddu moo ëpp doole liy dox ci kaw suuf kee góorlu na yàlla dimbale ko amaan na ñu jëlee njub ci moom yow loo defagum kon nit day moytu iñaan ndax iñaan day lekk ngëneel comme ni nga xamante ni safara noonu lay lekkee mat mbokk yi bokk na ci iñaan day yàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa tabaagadu wala taxaasadu wala tadaabaru wala wa kunu ibadallahi ixwaana waay waay bu leen bañante bu leen iñaanante bu leen joxante ginnaaw bu leen dogante jullit du dog mbokk jullitam loo mer-mer bu ko dog kon yonent bi sallallahu alayhi wa nañu wa kunu ibadallahi ixwaana nekk leen ay jaamu yàlla mais nekk leen ay frère kon bul tongu sa mbokk jullit lu ëpp ñetti fan muttafaqun ali mbokk yi ñetteel bi ci madaaxilu sheytaan mooy al ghadab muy mer mer moo gën a gaaw ci bunt bi sheytaane di jaare ci nit ndax saa bu nit meree dootul mën a téye boppam su meree day far nekk dof su meree dootul gis su meree aada dikk su meree ceddo dikk yooyu yépp mer rek moo ko mën a indi saa bu nit meree rek dikk ci wàllu ceddo loolu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax kenn ci saxaaba yi fàtte naa xaw ma abdurahman ibn awf la xaw ma abu dar ne ko innaka mruun fiika jahiliya ku fàttaliku ban kii la ngeen dimbale ma dama ko fàtte kan la ci saxaaba yi ah abu dar dafa wax dafa toog bilaal la nox bilaal yabnal aswad yabna sawda yow doomu ku ñuul ki xoola ma baat boobu islaam dindi woon na loolu lépp mais mer moo ko dugal ci wax loolu bi yonante bi jógee ne ko yow ndeke ba léegi ceddoo ngi def ci yow mu daw ci bilaal ne ko joggil sama lex yaa ma gën ñun la saxaaba yi daan doxee kon mbokk yi mer dañu koy moytu ndax soo meree rek wax lu ëpp beneen bi mbokk yi mer lii danger bi mooy soo bëggee te seytaane xeexal ak mer benn waay ñëw na ci yonent bi ne ko aw si nii yaa rasulallah mu ne ko laa tardab dama bëgg nga conseillé ma lu ma mën a jëriñoo yonante bi ne ko moytul mer bul mer waa ji génn gis ni daa tuuti mu ñëwaat ne ko dolli ma yonent bi ne ko moytul mer mu dem ñëwaat ne ko dolli ma yonent bi ne ko moytul mer nee mu dem këram di xalaat ci li yonent bi wax ba ci yàgg mu gis ni fa inna charra kulluhu fi l xalaq neena musiba yëpp ci mer lay déparé kon mbokk yi mer dana la taxa wax lu bon dana la tax a def lu bon dana la tax xalaat lu bon te boo paree da ngay réccu gis nga boo sàgganee ba mer ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu la mer xësee bu dugg seytaane dugg la sa deret lay dox nee na bu duggee sa deret bët yi day commencé xonq si di di jóg commencé hmm, dootoo gis commencé di xiiru li tax mer bon soo meree wàcc nga nit nekkatoo ni yaa ngi ci asfala saafiliin léegi nag yaag animaux yi yéenay niroo que ça ban nga ciy tànn léegi boo meree bëgg a mel ni gaynde waaw hmm. ah. léegi yaa ngi commencé wàcc nit di dem ci gaynde walla nga mer di wax waaw coow coow yaag xaja yem mbaw mbaw noonu la xaj mel wala nga mer di cëpp cëppi yaag bëyee yem kon mer bu mu ci mënti doon baaxul jikko yooyu yëpp moytu ko. beneen bi xam nga mer li tax mu dangereux soo meree da ngay wàcc sa daraja moo tax borom bi ne wal kaazimiina al ghayda allahu akbar wal kaazimiina al ghayda ñi gën ci nit ñi te gën a dëgër mooy ñii mer denc ko ku dul mer amut mais xeex ak sa mer ngay def léeg-léeg nit def la loo xam ni soo fàttali ko démb rek mu musiba am mais nga mëtt ko nag lu tax mu metti mooy booy denc mer moom woho lu tàng ngay yëg parce que li mu la def ci biir nit ñi nga bëgg a wan nit ñi ni kii munuma nga xeex ak moom loolooy njàmbaar looloo gën a di moo tax yonente bi ne laysa shadidu bi sira innama shadidu man yamliku nafsahu inda al gadab waaw xam nga nekk sa soxna ci kër gi waa kër gi toog nga wax ba pare mu ne moo day fen rek ku ko ci sa jabar waxoon balaa ñuy wax dara nga àbb nopp bi mais toog di ko xool euh, fan yi dama am benn euh, kii bu ma seetaan benn émission sama yaram dafa daw bi waa ji waxee ba pare dama rus wane nañ ko damay bañ a wax télé bi waa ji jabaram da koo xëpp ndox mu tàng yaram bi yépp xolli ko waa ji naan baal naa ko parce que seytaane ko mën rek ndax daana ma defal lu gën lii non damay toog ma ne mais mais kii di wax nii moom moom lu xew xoolal nun la ko jabaram def xëpp ko ndox mu tàng daw mbokkam yépp ne bàyyi ko mu ne jamais du ko bàyyi bàyyi ko mu ne jamais du ko bàyyi gis nga ko xoola nit ñi ni ñu mel pourtant kee bu suufee ci jaamu yàlla ku jàmbar la ci muñ li mu muñ yombul ku koy muñ de yow bu la sa jabar defoon benn cicatrice foo ko xalaatee rek bëgg mi jooy <laughs> tourne bëgg dal ci kawam kon mer da ngay xeex ak moom fi ngay xeex ak moom ci biir mbooloo mi ngay àndal ci ngay tàmbalee yar sa bopp yaa ngi wax nit ñi lu bon recevoiral ñu wax la ko yaa ngi def nit ñi lu bon recevoiral ñu def la ko kon almuminu ilfun maluuf wala xayra fii man laa yaalaf wala yulaf jullit dafa war di miin ñu koy miin pour nga nekk ak nit ñi nag koo xam ne bokku leen fu ngeen juddoo bokku fu ngeen nekk da ngeen a nekkandoo il faut jikko yi day ñëw mais ki ciy gën ki ciy tane mooy kii mën a recevoir nga moytu nag ñiy wax bu mu la ko defati ëpp la doole ëpp la nangam seytaane bu ñëw di wax la mais xamal ni yow li la war combat bi pour nga gañe ko mooy nga fexe ba xeex ak mer boo xeex ak mer ba pare nag seytaan du la fàttaloo mu la defee de moo tax boroom bi ne wala aafina ne naas soo meree ba pare baaleel ku baale day fàtte soo fàttali fàttalikoo rek soxor moo tax bu kenn fàttali ko gis nga problème léeg-léeg mu am ñu bëgg koo régler su ñu ñëwee départ ci source problème bi pour régler ko rek bu kenn dellu ginnaaw fu ñu delloo ginnaaw rek du régler wu. ñaar ñu soween am problème ngay ñëw rek jëkkër ji naan daaw defoon na ma nangam ba ma ko kiyee mu defaat ma ko daaw jéeg sëy boobu du réglé te boo ñëwee di wax ne leen kenn ku nekk xam na ni lii lii mooy xew nañu wax ci lii ñu réglé ko une bonne fois pour tout nit nag su fekkee ni def na la lu metti nga muñ ko da koy boole jàmmal ko baal ko waaye fàtte li gën a am solo mooy kadda bu rëy inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla nee na ñiy def lu baax dama leen a sopp ku nekk ci ñun dafa bëgg yàlla bëgg la kon melal nu mel noonu rawatina nag boo nekkee koo xam ne amul doole amul xel amul xalaat la ma góor ga waxoon. ne ma ma ne ko naam mu ne ma jigéen dey Ali ibn Abi noon na charrun laa budda minhu ma ne ko waaw mu ne ma kaay ma firil la ko mu ne jigéen mooy koo xam ni su kontaanee kenn gënu ko ci yow. su meree kenn gënu koo yées ci yow kon xoolal kontaanu démb ngir fóotee ko merum tey wallaahi dama toog ba caag ma ne noo paa bi xikma la ma wax nee na jigéen mooy koo xam ni su kontaanee kenn mënu ko ci yow seetal sa jabar kontaan nga kontaan kër gi nu muy mel jàmm ak salaam ngay dégg kër gi neex lool waaye bis bu meree <laughs> moytu bu meree mu fàttali say mbóoti maam léegi nag fàttalikul démb na mu kontaanee woon ba toppatoo la tey seytaanee ñëw rek moo tax yaa Aysa bi mu meree wax yonente bi ay kàddu xoola yaa Aysa mer wax yonente bi ay kàddu yonente bi ne ko xanaa sa seytaane bi moo ñëwaat yaa Aysa ne ko ah kon ñun ku ne am na seytaane mu ne ko waaw man yàlla ma dimbale sama bos tuub xoola noonu la naxee Aysa parce que xam na ni xale la mais bu muy wax bu ko tontoon problème du am xoola yaa Aysa di wax ak yonente bi Aboubacar ñëw yonente bi wax ba pare mu ne ko waxal dëgg bi <laughs> loolu du musiba Aboubacar dafa tëb rek toj nopp bi yonente bi ne ko tas sama Coran waxuma la nga dóor sama jabar atteel ah, laa la wax mais xoolal ni yonent bi toll mais ay Aïcha soxnaam la mais su ko nee waxal dëgg bi mer a tax mais du jubluwu ci réewane jubluwu ci loolu kon jigéen noonu lay mel kon nag ki ci gën mooy xeex ak sa xam nga ko jaaxal jigéen góor gu mer kooku rek moo jaaxal jigéen lu soxna si def rek waaw waaw amul benn problème kooku jigéen ji day day wër wëre wër ba du am lu mu day mujj joom mi kooku mooy ki ko jaaxal ci biir sëy ñaar ñoo jaaxal jigéen bu sëyeegut ñaar ko jaaxal góor gu ñaaw lool te bëri alal ak jaaxal jigéen góor gu rafet lool te amul tus ñaar ñi ñoo jaaxal jigéen bu sëyeegut góor gu ñaaw lool bëri le lool góor gu rafet lool ñàkk lool ndax jigéen dafa bëgg taar bëgg alal te nag alal bëriwul ci nekk ci ñi taaruñu de <laughs> boo seetloo alal moom gaa yi gën a ngoogaan lay fekki parce que ñoo gën a mën a sonn ci liggéey gaa yi taar yi taluñu liggéey balaa ñu liggéey jël mi leen puudaru peñewu xool bëgg a génn gis nga ñaaw ñaaw yi xëy nañu sël mu dem fa la ñu nekk di dajale ñëw léegi nag jigéen ji bëgg na ci kër gi léeg day xool jëkkër ji mu ñaaw lool bu bëggee dem xool matériel beeg alal ji mu ne ah naa muñ rek <laughs> loolu moo ko fi bàyyi xam nga loolu subhanallah allahu akbar mi ngi noonu léegi nag bu xëccoo ba ñëw ci gitaaru lool lool lool rafet na waaye bu xëyee lu muy xalaat dépense kon mi nga gis nga kon mbokk yi il faut ñu jéem a yar ci suñu bopp ci lu mel ni mer kon nañu moytu mer ndax day yàqal doomu aadama da lay dugal ci saaga dugal la ci wax lu bon dugal la ci xeebaate dugal la ci loo xam ne boo paree dangay ngay rus ñaata nit ñoo wax kàdd goo xam ni mënatuñoo dellu ginnaaw ñaata nit ñoo ko def parce que benn kàddu nga wax mu baare la ci koñ bi benn kàddu mën na la tee dugg kër joteeg nit wax kàdd goo xam ni bu nit ñiy dem boo moytu da ngay sëgg te xam nga mer li tax mu bon day toroxal nit soo meree wax lu ëpp su nit ñi dem ci moom da ngay mujj sëgg bu ñuy waxtaan da ngay sëgg rek def nii doo mën a wax parce que da toj kaas yi kaaj ku ko tos ku toj kaas mënatoo koo tabax kon da ngay moytu yar sa làmmiñ ci lu mel noonu mbokk yi mer ay loram dafa bëri lool même ci santé wér gi yaram bëri na ku amee tension gaaw a mer moo ko ko yóbbee bëri na koo dégg mawtul fuj a dee bu gaaw fekk li koy indi mooy ku mënta maîtriser boppam moo tax yonente bi sallallahu alayhi bi benn waaye meree di coow di coow yonente bi ne wallahi xam naa loo xam ne su ko defee rek mu deñ ñu ne ko lan la mu ne bu naanoon ndox gaa yi daw wax ko su waxoon aouzu billahi mina sheytaani rajim moo tax mu ne boo meree taxaw toogal soo meree toog tëddal boobu bokk ci borom xam-xam yee ko ci yokk soo meree naanal ndox wala nga jàpp mu jeex parce que mer safara la safara fu ko ndox fekk da koy def kon bu ñu la waxee lu la metti rek boo yemee ci ndaale tànkal ndox ne bismillah naan nit wax la lu bon neel auzu billahi min asheytaani rajim rek cheytaana dem nga mucc te gis nga li tax mer neex ah, denc mer neex jàmbaar mu mën a denc mer ki la wax musiba nga xool ko ba jàgg ne ko baal naa la billaahi ñetti fan yow rek lay xalaat fu mu toogee dana mais lii lan moo ma ko teg pour pourquoi ma toroxal sama bopp nii mais pourquoi diw def lii man intention bi ma amoon ak li mu def loolu rek moo gaaw ci wàcce nit soo bëggee neutraliser nit jarul armation jarul dara armation bi gën a gaaw mooy baal naa la lillah jox ko loxo fóon ko ne ko mbokk dangaa juum rek awum problème gis nga borom day mujj bu xàccoon loxo bi day damm du xam nu muy def bu naroon wax musiba gémmiñ gi day damm day mujj toog di xool su fa ay góor nekkee na bu ko ñëpp ne xoolal ku ñëpp yedd nooy def da ngay dee day mujj fu ngeen dajee ñaari loxo la lay jox parce que day xam ni yaa ko gën waxu ko mais ci jëf nangu na ni yaa ko gën parce que li li li nga muñ yow soo ko ko defoon moom du ko muñ moo tax nag xeex ak muñ baax na maa ngi koy digal sam bo ak mer di ko digal ñëpp bokk na ci madaaxilu seytaan muy ñeenteel bi mooy ashiba ëppal ci suur walla loo jëm rek bëgg ca ëppale bu dee lekk da nga bëgg lekk ba doo nooy musiba la bu dee naan danga bëgg naan ba màndi olof nee na ku naan ba màndi rek def li màndikat def màndikat lu muy def lu muy def du day géex boo naanee ba mànd <coughs> rekk waaw ku màndi noonu nga koy xamee fu mu toogee rek day géex kon naan ba màndi baaxut waaye lekk ba rek baaxul kon moytul ci wàllu àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo wax ni nit na séddale biiram ñetti mbir li muy lekk li muy naan ak li muy nooye waaye bu fekkee biir bi danga ko koo solo sol ba boo jaaxaay naan kuma tiim loolu mu musiba la kon nit dangay lekk lu yem gis nga boo lekkee lu yem di nga mën a naafi la dinga mën a tudd yàlla doo óbbale lu bari foo fekk koo xamante ne day toog gaaw a sonn seetlu ko ci lekkam ndax lekkam mi ngi lekk régime normal wala mi ngi def lépp loolu mbokk yi nañu ko moytu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci benn asar ñu ne borom xam yee ko wax dayiqu majaariya cheytaan bi sawm maanaam jaar-jaaru cheytaana nee na na ngeen ko xatal ci koor xamalu tax boo suuree rek cheytaana da lay gaaw a mën mais boo wooree du la du la gaaw a mën kon loolu bokk na ci beneen bi mooy at tama fii naas wala tama maa fii ay di naas fuqale ci li ñu yore mooy li nit ñu yore rek nga gën leen koo bëgg loolu bokk na ci madxal bi gën a bon ci wàllu seytaan lu nit yor rek yaa ko waroon yor non ah diw de vraiment yéreem bi rafet na quoi mais xam naa waaju ko daa mel ne daa am fu mu juum yow sa àdduna nekkut lu dul rek diw pourtant daal yi rafet na mais su ko ëppul woon macha allah. diw macha allah diw xees na mais tomb bu ñuul bi rek moo ko xaw a yàq sa taat li ngay tardeel sa bopp ci yooyu bindoo ko defaloo ko doo dem dox ci leneen mais li nit ki yore mooy da ngay fexe rek ba lu nit yore nga fexe ko ne coppet ci moom taxaw di ko seetaan loolu nag ci ci ndaw la ñu koy yaroo dañ koy dindi ci xale xale bu nekkeek ak moromam lu nit yore mu këf rek mag ñi dañuy wax ni dumaal jubbantil bul seetaan sa doom muy këf comme ginaar li moroomam am bu ko këfee nga gis ko rek corriger ko léegi parce que kenn ku nekk war naa am loolu nit ki war na cee góorgóorlu beneen bi muy juróomeel bi bokk na ci madaaxilu sheytaan al ajalatu wa xubbil maal yàkkamti moo tax yonent bi nee na walakinakum tastaajiluun sahabatul kiram dañoo nekk màkka yi fii metti lool metti lool bañ naan yonent bi mata nasrullah affaire yi metti na yonent bi ne pourtant da ngeen a yàkkamte rek mais yàlla lim ma wax dana ko def même ci sunna bu yaboo a seen xel dal nañu kontaan te yokk liggéey bi sunnaa ngi dem de wallaahi kuy génn di dox di nga xam ni sunna mi ngi dem loolu nag yàkkamte du ko defar xam nga lu koy defar teey ak góor góorlu ak ñaan yàlla ndax yonent bi neen al ajalatu min ash-shaytaan yàkkamti ci seytaane la bokk kon nit na nga moytu yàkkamti ci ut alal boo yàkkamtee ci ut alal def lu ëpp yàkkamti ci ut soxna boo yàkkamtee def lu ëpp yàkkamti ci ut xam-xam moo tax ñu bëri amatuñu xam-xam ñi doon jàng démb dañu doon teey dem jàng quraan mokkal ko wala nga dem ba jeexal ko ñu tëralal la téere luxa nga commencé jàng laal fii fiq laal ku noonu lañ doon jàngee xam-xam ci diire 4 ans 5 ans nga nekk borom xam-xam boo xamante ne ummahaatu kutub yëpp jeexal nga ko mais bi ñu demee nag ba léegi nit ñi yàkkamti nga xam ni par force rek damaa war a nekk ustaas toog di wax ñu di ma déglu bu dee mooy sa intention ci xam-xam pour nga am ko dana jafe léegi luy nekk sa problème mooy fo di di for affaire yi di teg. benn affaire bu ci nekk doo xam luy xukmam doo xam luy wareefam commencé bëgg di ubbee di def loo xamante ni du noonu loolu li ko indi mooy yàkkamti géeju xam-xam li ko yàq lu bari mooy yàkkamti kon loolu war nañ cee def dellu ginnaaw waaye beneen bi mooy yéene mën naa rafet dem ba ci biir mu yàqu ndax damaa war a am xam-xam rek bu dee mooy sa intention loolu tamit lu doy waar la da nga ciy gis koo xam ni xam nga jamono. man damay encourager toujours ku bëgg jàng xam-xam dama toujours man mooy suma jikko mais damay wax ni nag dinay toll foo xam ni léeg-léeg nga bàyyi loo xamante ni moo ëppoon solo uti xam-xam léeg-léeg nga bàyyi loo xam ni moo ëppoon solo uti xam dinaa ci jox benn anecdote suñu benn boy dafa nekkoon ci génie civil la doon def muy def génie civil dem ba année bi mu waree def ingénieur am nga xamante ne at boobu la ko war a def commencé woon na bind sax ba commencé bind ay paas ci li mu war a defee kéem jékki ba ci yàgg rek ne ma oustaz man dama bëgg a jàng man ko ah waaw jàng kay moo wax dëgg yàlla lu baax la mën nga jàng mu ne xam-xam laa bëgg ma ne ko waaw fan laa ko mën a jàngee ma ne ko fii ci Sénégal bu dee Qur'an wàllu xam-xam loo bëgg am na fi yow kay fexeel. ba heure boo jàngul rek fexeel borom xam-xam yi la jege ku ne nga jàng ca mën a noonoo man dama bëgg dem foo xam ne danaa mën a jàng gaaw a am xam-xam gaaw a ma ne ko moment bi nga toll nii mu naa ah, ma ne ko conseil wu ma la ko mun ne ma lu tax ma ne ko sa yaay dafa néew doole sa papa dundul say sœur ñëpp ci yow la ñu wekk seen yaakaar te lii bu la ko yàlla réussir looyee nga am sa diplôme. société bu la jël balaa dara dañ lay véhiculer société bu la jël pour liggéey balaa nga faa def un an ñu jox la oto parce que sa métier loolu la laaj sa base de salaire dina dépaale au moins trois cent jëm six cent mille mu naa ma ne ko toogal nga dimbale sa yaay dimbale say sœur ñu wax ci ay yoon dem ba ci yàgg mu ñëwaat ne ma man daal décidé naa ma ne ko ah mu ne ma dama bëgg a dem Mauritanie jàngi ma ne ko diw mu ah, ma ne ko mun nga dem murtani jàngi mais toogal fii nga jàng nga dimbale sa yaay dimbale say sœur loolu man pour man moo ëpp solo dama xëy rek dégg ko murtani yàlla dogal jamono jot ma am rihla daawa côté Rosso senegal Rosso Mauritanie bi ma demee rihla daawa boobu ne ci biir la bi jékki ba ci yàgg rek dégg ku ñëw ne ma diw ma ne ko waaw diw day sama sama booy la xam naa ko bu baax a baax naam sabat daanaka par mu ne ma ma ne ko diw de xam naa ko bu baax a baax a baax anamu mu wax ma ci moom affaire yu ma jaaxal ma ne ko non loolu yaakaaruma li nga wax amee na noonu jékki mu def foofu at la fa def ñibbisi dafa ñibbisi rek yaa ji daanu feebar cancer bu metti léegi pour mu dimbale yaay ji day mujj ñëw toog ci nit di di ñaan bay jooy sama yaay di wax bay jooy ma woo ko mu ñëw ma ne ko nga baal ma àq maire bi yàlla na ko yàlla saafara wax ko li ma xam ci feebar boobu li koy faj mu naa ah, ma ne ko problème am na mais yow it def nga problème mu ne ma oustaz la keroog la ma nangoo déglu mais moom moment bi ma koy wax nangu mu déglu. mais suñu àdduna mais waxuñu ñu tëj ko borom bi daf ñoo wabtaghi fii ma aataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ñii dañuy jàngi am xam-xam mais ñii am moyen Ousmane Ibn Affan dafay nekkoon yore moyen di dimbale daawa bi kon kii wax xam-xam day góorgóorlu mais boo utal moyen dimbaleel daawa bi fexeel boo liggéeyee am bu ñu soxlaa jëndal rajo jox daawa bi jëndal oto jox leen bu ñu soxlaa jox leen paas kenn gënu laa def daawa yonent bi bi muy dem jaysul usra saxaaba yi ni ñu toll kan la ci yonent bi tàgg du Ousmane maa faala maa darra Ousmane maa faala lan ma ko ni du joxe kon ku nekk mën nga am ci loo nekk ne ci góor góorgóorlu yal na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla defal ñu jàmm su nu fi waxee loo xamante ne peut-être laal na kenn du suñ jubluwaay mais jubluwaay bi rek mooy wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh